first champion in the law. Kaka Jija, you're good to go. It's not sports time. So when you start to go, when you start to go, you start to go, all right? Musa, Jamaica, Ibrahim, Attention, Attention, nouvelle Pour rien casser le policier. À ah, ah, la police, ouais, on On la On a Attention, il va qui est là. Accompagné de Maître Alun de la Bible, de Coach et Aminou de la Bible. Vous avez Diamanta également qui est là, qui monte sur le ring, accompagné de son coach. Wassim Salom, est-ce que vous êtes là Attention, les vélos avec un policier. il Et bien, le président de la ça va chauffer. Point rouge. C'est parti pour le premier round.

Ana ñaar ñi la waaw sénégalais yi ñu ngi suñu premier combat de policier boxeur. tey nag ñu ngi nag gis policier boo xam ne day boxe mu nekk loo xam ne du nekk gulet parce que policier yàgg nañu am combattant yàgg nañu am ay sportif aspar amoon na fi ay police amoon na fi bi Fatou nekk mbër ñëpp xam ko mais tey nag Ibrahima Mbodj la police indi Ibrahima Mbodj mi ngeen gis nag moo sol lu bleu bi moo représenté police ci combat boo xam ne de di suñu la première loolu lañ mën a wax combat bi démarré na entre Ibrahima Mbodj ak Pape Moussa Diamanka voilà voilà Mbodj Mbodj Mbodj wulli rek wulli ko ba mu nooy wulli na ko ba mu nooy jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp bëgg na jàpp ab bi yaa ngi koy xañ de waaw mbokk yi yéen ñi suivre di Kodo TV bu jël foofu ñu ngi toog fii sama yaram neexul nag maa feebar bëgg na jàpp jàpp jàpp jàpp waaw damaa forcé ñëw sama yaram a daw mën naa bañ a ñëw mbokk yi borom lu bëri li ngeen gis mooy alkaati bi nga xam ne day bokk ginnaaw bi photo mu pare ci làmb ji am na ndam beneen ndam mooy relation bi li bi gars yi doon xeex ci waa police tey directeur police bu bees bi mi ngi koy continuer ginnaaw bi Ousmane Sy ak Omar Mal commencé ñu gërëm la général bokk na yàgg mu def tey moom ñu gauche bi baal gauche baal gauche baal gauche wax ni lii mooy Sénégal lii mooy police jege askan baal gauche bi baal gauche bi baal gauche bi baal gauche bi sport buñ paree jaxasoo civil yaa ngi nii di supporté mais nee naa leen waaw mais ku ci ku ci farul police bi boo paree du la ramasse ma ne ku ci farul police bi mbaa boo paree du la ramasse te ngeen faral ah ooy wala foofu wala po ah man maa ngi far di waaye fii de boote du far waaye nag. jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp Diop gauche droite booy gauche droite la ma wuli defan fayil ma ko. jàpp rek jàpp ak seen jàpp ba léegi. waaw jàpp jërëjëf jàpp jàpp jàpp jàpp. waaw waaw noonu rek noonu rek la ay ñam rek dee ba ko ñamal naan may daw na. ñu ngi may doon keneen léegi ma ci kii ma ànd naan naa may ñëw bu leen maree daan nag ñu laa mën a reporté parce a xañ waaw jàpp jàpp jàpp jàpp jërëjëf jërëjëf moom moom rek waaw ñam rek ñam rek jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp On commence à expliquer un programme très offensif.